سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن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 وتجمعون ما لا تأكلون وتكاثرتم حتى زرتم المقابر وتعاميتم كما تصاممتم عن العبر والزواجر هل وعدكم الله في هذه الدار بالخلود فنسيتم اليوم المشهود فكيف الحال إذا نزل الضيف المجتاح وما له قرا إلا الأرواح الله الله عباد الله واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على الحريق انظروا إلى جذعكم من الشوكة والرمضاء سبحان من له ولا عليه القضاء وأنتم أبناء السبيل فأوذنتم كل يوم بالرحيل فاطلبوا خير الزاد التقوى والصلاة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا زحزحنا الله وإياكم عن دار البوار وحلنا وإياكم دار القرار وحمانا وإياكم عن حطام هذه الدار إن أصدق ما نطق به اللسان كلام الملك الديان كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز بارك الله لنا ولكم في الذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي لا يوصف غيره بالكمال ولا بالجلال والجمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للعالمين ليظهر فضله وعدله شهادة من لم ينس الشهادة القبلية فكان من جملة الحاجدين من ربهم المزية صلى الله عليه وعلى عترته الطاهرة وصحابته الأنجم الظاهرة صلاة تتعاقب تعاقب الدهور يديم بها علينا ستره مولانا النصير أيها الناس إياكم والتخالف واعتصموا بحبل الله والتآلف والتخالف ما هلك من قبلكم إلا به وبه يعدنا الدهر بنا به وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا قال تعالى سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا في غير ذلك بالدين تحققوا وسبل العافية اليوم لا تسلك إلا بالمقال ولا يزال يكذبنا لسان الحال فما لنا إلا عيون ناظرة لا تبصر وقلوب قاسية لا تفكر فما أشد صمم الآذان لأن الرهائن قد غلقت عند الشيطان فاتخذوه عدوا كما قال جل وعلا علوا نجانا الله واياكم من كيده وعمنا وصائر المسلمين بخيره ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين اللهم هم بالصلاح والتوفيق رعايا المسلمين ومعاتهم وامراءهم وولاتهم وحكامهم وقضاتهم وعلماءهم وهداتهم وكثر أنصارهم وارحم حوزتهم وأعل منارهم وأمن سبلهم وارخص أسعارهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأن شفاعته من صلى عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنر في القيامة وجه من أثنى عليه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين يغفر الله لنا ولكم بسم الله صلى الله عليه وسلم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 asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah. asalaamualeykum wa rahmatullah. asalaamualeykum wa rahmatullah. waaw dañu ñëw ci turu président Macky Sall mi ñu fi yebal ma délégation bi ak le ministre de la formation professionnelle Mamadou Talla ak gouverneur de la région de Thiès ak le préfet avec toutes les autorités. ànd ak également ministère de l'éducation nationale avec les directeurs des consciences scolaires et l'ensemble des inspections de la région de Thiès président Macky Sall dafa ndokkeel félicité Serigne Tafsir Abdourahmane Gueye ci li nga xam ne liggéey na ko fi tabax daara bu xam ne bu mucc ayib boo xam ne di bërëbu jàmm yàlla waaye également di bërëbu formation maanaam di tàggat ay xale président Macky Sall nee na loolu dafa nekk loo xam ne mu ngi ko jàppale ci développement Sénégal ndax plan Sénégal émergent boo jëlee ñetti euh, pàcc yi benn pàcc bi capital humain la maanaam formation la kon lii ñu def fii ay téeméeri téeméeri doomu Sénégal di fi jànge ñu leen formé dafay nekk loo xam ne liggéey la bu ñu koy jàppale ci euh, réew mi kon ñu ngi ndokkeel sëñ Tafidou Abdourahmane Gueye di suñu rak di suñu xarit di ko encouragé yal na ko yàlla taxaw ci liggéey bi. Ah, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen wax ni gis ngeen itam liggéey bii nga xamante ni fa tabarakallahu tafsir Abdourahmane Gueye mu ngi koy def tafsir lañ ko gën a xamee mooy dafa siiwee ci firi gàmmu dafa siiwee ci def conférence dafa siiwee ci def émission waaye mu ngi def ay réalisation yu am solo ci réew mi di Sénégal ndax infrastructure yi nga xamante ni teg na ko fii tey fii ci taset te lu jiitu taset boo demee Thiès gis fa daara alquran yam fa def waaye nga ñëw fii hectare yu tool nii nga def fi jumaa joo xamante ni cent cinquante mètres la nga def daara ji ci kaw nga def fi dortoir boo xamante ni dina jël lu mu néew néew néew néew néew ñaar téeméeri xale yoo xam ne kenn du yalwaani ndekki añ reer yëpp moo leen ko warlul nga jóge ti fa mu def fi réfectoire fa ñuy lekke def fi ba ci ay bloc toilette def lépp ba def ba def terrain football parce que tey jamono day dem ba dox xale kenn du ko dóor ndax ñoom Abdoulaye Gueye ñii bañ leen di jàngal alquran dañu ne alquran ngir mu mën a dugg ci ñoom da ngay xar seen ndigg dugal fa alquran mooy fokk ñu dóor leen ay yet wala nga dem ba nekk mag nga xar sa xol nga jël sa yitte yëpp jox ko alquran ngeen mën a mokkal alquran waaye jamono dox na xale yi tey da ngay ñëw nee leen sama sumun laa yor bu ngeen tere su mun am ngeen droit football yi nga gis ni loolu yëpp ci pédagogie la ak nooy jàngalee xale yi fa tabaarakallaahu mu jëf fi jëf ju ni mel waaye nag da ngay gis ni lu waaye am ci kaw suuf billaahi faru ko ndax deret du fen ndax yonent bi nee na taxayyaru li nutafikum ñu ne ko lu tax mu ne fa innal irqa dassaas tànn leen fi ngeen di def seen jiwu ñu ne ko lu tax mu ne siddit day wàllante ma ne Sirif fanaa ñu gàttal rek mhm. ndax li ñu waroon a wax yëpp Sirif wax na ko boo gisee ñu déplacé woo bi ba fii ah Tafsir moo ñu ko jaral ndax saa yu ñu ko wooyee mu bàyyi léppam isiwaale léppam jox ñu kon ku mel noonu bu sampee lu mel nii ah, wax dëgg yàlla pour uy su ko war naa xanaa di ko ñaanal rek ah, place bi nga xam ne moom lañ tuddee suñ bàyyi di bàyyi xalifa gay ñëpp xamoon ni meloon ci lislaam ñëpp xamoon lim liggéey ci lislaam ni nim yaree doomam ci lislaam yàlla nañ toog ba doomi Tafsir waxuma la doomi tafsir waaye sa siti tafsir sax tabax lu mel nii. kontaan nañu vraiment li ma leen wax rek kii doon wax di Chérif Mamin dafa li yonent bi waxoon ci salmaanul farisi ni salmaanul minna ahlul bayt salmaan ci waa kër yonent bi la ñun loolu la ñu wax ci moom. moom kenn ëpp ko kàddu kenn ëpp ko sañ-sañ ci jaboot Alaaji Xalifa Gay suñu way jur yal na ko yàlla xare àjjana dañu xamoon fi mu tolloon ci moom ak nu mu ko jàppe woon digganteem ak tafsir ñëpp xam nañ ko. moom buy wax tafsir mooy wax bu tafsir di wax Chérif Mamine mooy wax kon lii mu wax rek amuñu lu ñu luñ ciy dolleeti macha allah liggéey bi rafet na kontaan nañu. léegi nag lii li muy wane rek maa ngi dégg keroog mu koy wax ci émission bi nga xamante ni Al Amine dalal na leen ko xam nga da ngay dégg ci dëkk bi ñuy mbamb ak di ŋàbb fu ñu toll ñuy wax ci diine. bu koor jotee sax kenn dootul am jàmm seen traite ubbi na dinañ am lu dul jeex d'accord am nañ lu dul jeex waaye bi ñu ko amee fii lañ ko def c'est très sem réponse baa ngi li arab naan lisaanul xaal asdaqu min lisaanil maqaal lu ñu am feneen yóbbuwuñ ko fen fu dul fi neex yàlla tabax ci jàkk tew an al masajida lillah lii ku ko xool xam ne kii chef d'œuvre la moo kii kii du caaxaan réalisation bu am doole la boo xam ne comme ni ko Chérif waxe bu ci participation bu vingt pour cent amee ci bien bienfaiteurs yi quatre-vingt pour cent yi moom mu ngi ko def ci lii lu mu am ci sponsoring lu mu am ci conférence lu mu am ci gàmmu lépp da ko doon takk ñëw jënd ciment jënd suuf jënd lépp def ma macha allah kon looloo waral lii fii lii la lislaam bëgg fii la ñu julle waaye mu ne bala ngaa julli ñu tabaxal la jàkka almadaarisu qabla almasajid ñu tabaxal la daara nga jàng ba boo jàngee boo duggee fii li ngay def day baax ndax borom laxdari day wax ni wala yaxilu li muslimin ah, li mukallafin an yafaala fi'lan xata yaalama xukma allahi fii pour nga xam atteb yàlla ci biir jàkka ji xam ni nga fiy toogee xam ni nga fiy comporté woo faw ñu waajal la moo tax préparé nañ fi daara ju ñuy jànge fii mooy jàkk mooy jumaa ji waaye boo yéegee ci kaw fi la daara ji ne te nag organisation bu parfaite moo fa ne boo gisee direction bi fi mu nekk day jàkkaarloo ak xale yi moom la directeur ak euh, corps pédagogique bi bu ñu toogee dañuy jàkkaarloo ak xale yi ci daara ji bu ñu fi jàngee ba pare ñu yóbbu leen fi nga xamante ne mooy réfectoire bi bu ñu bëggee lekk fa la ñuy ak dortoir bi fi ñuy war a tëdd lépp c'est bien organisé même jàngalekat yi sax am nañ fi logement des enseignants yoo xamante ne fii la ñuy fanaan nekk fi kon lépp lu war a jaga béréb bi dina fi am incha allah Chérif wax na ko ñun dañu am système bu bees bu ñu indi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati l hasana fexe ba xale yi jàng te fitna yi daan am dootul am maanaam béréb bi Moussa Alioune Dieye mii di taf ci Abdourahmane amee juróom benn la ko bàyyi Alaaji Xalifa Gaye jël jox ko Moussa Alioune Dieye si moom la jànge ba wàcc alxuraan ma ñibbisee lay a ñëw ci man mu jël bërëb bii nga mooy jumaa ji daara ji nekk fii ci kaw ñu dubbee man talabu saliha daawatina wa gayrihim min dawi imani kullihim فاقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم كذا أصولي وأحبابي أصولهم عممهم رب تعميما بذا الحكم ومن لنا محسن ومن نسئ له يا ربنا ربنا يا واسع الرحم وما نؤدي من الأذكار جملتها فاقبلنا إليهم يا فارج المني ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فها نحن في ضيق شديد التراكم فها نحن في ضيق ولم نرجو فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا غريبا كما في البدء يا خير إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل اتباع سنة في تراحم نعدت عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإيصاء نظر هاشم نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وزير وجن ثم ذي حقد فم وعين وعين وشياطين وظالم ومنافق وذي حسد ومن تفسق يا رحمن نجني من النصاري ومن قفوا طريقهم من النصاري ومن قفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قال دعوني إني دعوتك ذا خوف فخذ بيدي يا جاعل الحال بين الكاف والنون يا جاعل الحال بين الكاف والنون يا ربنا بالمجد والبهاء والذات والصفات والأسماء يا ربنا والأرض والسماء وما بها يا ملك الأشياء الحق جماعتي بهؤلاء بخيرة الأخيار الأنبياء وكن حجابا بيننا يا ربنا وبين عادنا الغور ربنا واقبل لنا بالفضل والرضوان ملبسنا بحلل الغفران وارحم جميعنا ووالدينا يا ربنا وارحم جميعنا ووالدينا يا ربنا ربي مسلمين وارحم جميعنا ووالدينا يا ربنا ربي مسلمين يا شيخنا احمد التيجاني من جبنا اعلى الوسائل الرحمن من جانا هذا الزمان زمان هذا رحمتنا في كل يوم بما نخشاه يغشانا وأنتم الحسن في شيء نحاضره بك استغثنا بما نرجوه ما كان يا أولا يا آخرا يا ظاهرا نوّر بصائر بعبدك المتذلل لا يبتلين الله جل جلاله ببلية إعراض عن ذاك الولي أماتنا الله على الدين نبي وحب شيخنا الإمام الطيب أرجو الأمان يوم لا أمانا إلى لمن آمنه المولانا أرجو الأمان يوم لا أمانا إلى لمن آمنه المولانا اللهم عمرنا عمرا طويلا مباركا بالصحة والسلامة والاستقامة على الكتاب والسنة والفوز بالنعيم في الدارين والنجاة من العار والنار اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا عالما بالألطاف نجنا مما نخاف يا عالما بالألطاف نجنا مما نخاف يا شيخي ويا والدي أنت المربى توصلت بالله wa bi rasuli wa bi ahli bayti wa bika cheikh ahmed tidiane sharif ibn salim tidiane bi xurmati allahumma salli ala sayyidina muhammad tibbi alqulubi wa dawaiha wa aafiyati alabdani wa shifaiha wa nuuri labsaari wa diyaiha wa quwwati larwaaxi wa sharaabiha وعلى آله وصحبه وسلم بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر بالحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر بالحق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 di wax ni bu ñu ñëwee ñu jël ay nuyu yu sell teg ko ci loxo kilifa diine yi ñu fi fekk rawatina nag sëriñ Mbay ci Abdu bii sooge egsi léegi président nee na mi jël nuyoom yu gën a sell teg ko ci say loxo ginnaaw bi mu la nuyoo mu ni nga jël nuyoo yooyu jottalil ko ko xalif général de Tidiane Serigne Mbaye Sy président wax ni mi ngi nuyu bu baax El Hadj Tafsir Abdourahmane Gaye mi nga xam ni moo sabab délégation bi mu def yónni ko fi tey di ko nuyu moom it di ko gërëm di ko sant moom ak ay magam ak ay rakkam asalaamualeykum Seydi Aboubacar Sy moom Cheikh Alxaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh radiallahu taala anhu moom Cheikh Sidil Hadj Malick si radiyallahu anhu si jërëjëf toogaay bii nga toog sa mag ju baax ja sa xarit bi sa soppe bi nga xamante ni mooy taajul udabai wa adibil ulamai muy Seydil Hadj Malick si Maodo nii la ko toogee woon démb ànd ko ak mbokkam ba Mansour Lo waaye tamit tabaarakallahu ñu jàngu xatm bi mu dalal gan yi dalal délégation gouvernementale Alioune jiite ko waaye ñu ñëw ubbi jumaa ji moom moo liqaam waaye tamit tafsir jiite fa tabaarakallahu ñu ubbi jumaa ji si sa benn mbokk sa kenn ci sa njaboot ñu koy wax sëriñ Mbuub bu CCBM nee na Sénégal dañuy dégg gëm gis weddi Sénégal dañuy dégg gëm gis weddi waaye lu ñuy wax ni weddi gis bokk ci ku xool liggéey bii nga xamante ni tafsir abdourahman liggéey na ko ñu bari jàpp nañ ci waaye si maa lay jàpp seede billaahi wallahi tallahi ñi ci jàpp ñépp boo ko xaymaa muy vingt pour cent quatre pour cent yi moom moo ko def dem nañ ba France mu jënd fa oto 4-4 bi ñu ñëwee ba fii daf ko ñëw jox ko quincaillerie bi boroom borom quincaillerie bi ne ko jaay naa la ko ci fer ak ciment lu ma soxla ci feer nga jox ma lu ma soxla ci ciment nga jox ma lu ma soxla ci suuf nga jox ma ko jël na léppam lépp lu mu am def na ko fii. dina defar compte rendu liggéey bii nga gis nii ndax liñ ci waroon def du fi xaj. te dama ragal ni buñ jógee incha allah dañuy indi julli timis ñaan mbooloo mi tasaaroo ndaxte yéen bu ñu leen amee leen téye lu yàgg liggéey bi ñu ngi ko tàmbali 27 avril 2016 kera mairie yaa fa jëkk def sa xaalis avant journée ba wax naa ni kera lu fa waaye lekk yaa ko fa def foofa la ñu laajee ab xaalis ma jox ko alxaaji Maas Mbeng bàyyu daara ji ma ni ko nag lii ca terrain ba ca taseet la jëm pour ñu tabax fa benn complexe macha allah suñu bàyyi laa xalifa gay suñu bàyyi ibra lëy ci dëkk bii oustaz abdou xaadir ngom ñoom ñett ñooñu ñoo fekkee teg xeer wu jëkk wi ñu wàcce kaamil daara ji daal di tasaaroo ca lañ ko tàmbali waaye ñi ci def seen loxo macha allahu bari na waaye boo xoolee carte yi musuma bind leetar ndax yarewu leen ñu loolu te yéen a ñu wax ku ñuy jox te laajoo waroo laaj waaye am na mbokk yoo xam ne laajuñu leen waaye def nañ ci seen loxo ki ci jiitu alxaaji Maas Mbeng ak soxnaam ajaratu Asuba Pay macha allah ak ajaratu Marie Pierre Pay fa tabarakallahu noonu la ñu ñëwaate tey indi enveloppe def nañ ci liggéey bi bu baax Cheikh Ahmed Tidiane sa mbokk sa taalibe noonu gis nga ko ci carte yi yi dama wax ni ku ñu ci def rek defuñu la ci ngir wut dara déedéet dañ la ci def ngir gërëm la cant la alxaaji abdallah fall bu bàyyi jibril joogu fall kere ca bis ba dafa yëkkati def ko ci turu kër bàyyi jibril joogu fall alxaaji asan sekk moo toog nit sawet wet alxaaji xalifa ababacar jéey macha allah asan mii moo tax daara ji ne ci kaw jumaa ji ndax plan bi bi ma ko mu ni ma lu tax mënu leen a def daara ji ci kaw jumaa ji moo gën a moyen cher te mooy gën a rafet loolu la ñu def moo waral ñu def ko asan mi macha allah asan mëne ndax dama wax ni jullit yi képp ku ma mas a gàmm baa ma conférence nga sarax ma fukki dërëm xamal ni sa loxo ngi ci gis nga président Macky Sall kere bi mu ñu recevoir mën ak Chérif dafa ni Chérif loo bëgg ma defal la ko mu ne ko sama jumaay baay jee nga yeesalaat ko mu ne ma tafsir loo bëgg ma ne ko sama daara altine ju jot bu ma gàmmoo conférence samedi dimanche la ma am dama koy vidéo duus yi laay wiide chaque leen di ma fay soixante mille vidange ndax égo bi jaaru fa ca saa sala woo directeur u ONAS ni ko nañu lijjanti ba branché tafsir ci ONAS bi moo tax xale yi léeg-léeg bu ñu may tooñ dañ ma naan yow moom boo faralul Macky Sall dalay lay débranché rek ci ONAS bi la lay débranché toog li jeex macha allahu keroog Mamadou Gueye nii moo ko doon liggéey gis nga li ñu boole entreprise am SVTP lañ fa yebal ñu gis ñoom liggéeykat ya na dara jay ñu ñibbi nettali ko seen directeur koor ga jot xaw ma ko suma ko gis mu yónnee fa xaalis bu bari ni moo ko def ci daara ji yàllay dox ba yow nga yebal ma gàmmu ci leen ma dem di ko firi daje ma Mansour fay muy ministre euh, ki yor ONAS ma koy gërëm di gërëm ki yor ONAS ne ko neel président ñamu yabaloon nangam nangam moom ma Mamadou Gueye ma moomoon entreprise ba nangam nangam am ku jóg ni ma kii mooy Mamadou Gueye bu daal di jóg taxaw foofu la ñu xamante fa tabaarakallaahu waaye xaaruñu ci kenn yàlla dogal na macha allah jullit yépp dañuy jël seen xaalis dañu jox ci boo ñu yebalee conférence wala gàmm musuñu fayiku musuñu laaj waaye nag bu yàlla dogalee ñuy sakkanal dara ba mën di wut teeree bii ba mën fa tabaarakallaahu di fi def lii jullit yi la ak seen ñaan noonu la Mamadou Thiaw meeru Taseet fa tabaarakallaahu noonu la def xaaruma ko gis ngeen dinaa ko wax fu bari carte yi bi ma koy defar dama ko bëgg a gis mu tëb ma defar samay carte defuma ko ci waaye fi la jaar rek di ñëw taseet gis liggéey bi ni ma waa tafsir man de gis naa liggéey bi nangam nangam ma ne ko ah maire mere naa la de mu ni ma lu xew ma ne ko bu yàgg ba tey maa ngi la bëgg a gis mënuma la gis pour waxtaan ak yow ci liñ fiy def mu ni ma ah baal ma de yëguma ko nangam nangam ni ma suba dinaa fa yónnee ca suba ga mu yónnee ciment bu bari ci bis bii mu yónnee fi ndawal lu bari soxnaam def noonu ndax looloo waral nekkul ci carte yi président Macky Sall bi ñu paree mu ni ma loo bëgg nag ci daara ji ma ni ko mu jeex nga ñëw inauguré ko mu ni ma dinaa ñëw mu noon décembre dinañ gise décembre gisewuñ ma xaar ko janvier gisuma ko dégguma ko février gisuma ko dégguma ko ma defar samay carte defuma ko ci ndax nee naa leen liggéeyu lislaam bi moom du ma xaar kenn dama ciy ne ku dapp nag nga dab ma waaye nag dabe na nag dabe na fa tabaarakallaahu kon ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla sàmm li mu bëgg ci réew mi yal na ko yàlla defal sëriñ loolu mooy contrat bi ñu la doon defal ci mbokk yi nga xam ne ñoo ci jàpp bismillahi walhamdulillahi alqaili fi muhkami tanzilihi alif laam ra anzalnaahu li tuxrija annaasa min azulumaati ila annuur wa sallallahu wa sallama wa baraka wa majjada وشرف على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى واهتدى بهديه إلى يوم الدين معالي العلماء أصحاب الفضيلة إخواني أخواتي في الله لله niyaabatan ankum wa ilaykum aqul assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bu ñu musloo ci bakkan ak seytaan yi yàlla ci wax ji rek ci tur bu tedd bi subhaanahu wa taala te moo bismillah di sant yàlla bu baax ci xéewal mu ñu defal te mënoon seetaan ndax bu nit day waaw mu sotti rek yàlla la comme que nee nañu waaw nag mu dimbale ñu ba mu sotti ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax di julli ci Sayyidina Muhammad fu ko nit waxee nag ngeen wedd lu tax loolu fu nit waxee ni di julli ci Sayyidina Muhammad ngeen la kon du yow ndax xamuloo ko moo tax as was asalaatu wasalaamu baax na wax ma ni baaxul waaye daal jox ko yàlla moo gën boo ko waxee rek ñun ñëpp ñu yàlla wutuñu wutuñu te yaa xam ci ki ñu wutu kan la muy Seydina Muhammad nga jullit ñu ci moom moom la ma gàññil jàppale ci loolu yàlla ñu ko yàlla war a defal ñun ñëpp yàlla rek nga xam yonent bi ku dul yàlla xam nga Seydina Muhammad moo tax rek moom moo ko mën a jox cëram ba mu doy yàlla ñu wutu nag ci loolu defal ñu ko di ñaan nag julli gi yàlla ko yàlla matale ci njabootam ak lépp te njaboot gi génn ñu ci ndax nga xam yóbbu na ko ci moo ne ana jaddu kulli taq yi may maamu képp ku ragal yàlla kon képp ku ragal yàlla rek set nga ci Seydina Muhammad dafa am nag gën a jege mu ñoom chérif ñi toog fa tabaarakallah ndax ñoom deret ak lépp la boole ñun nag ci topp lañ ko xame kon ñu ngi julli ci moom nag di ñaan julli gi yàlla leen ci yàlla boole ñoom ñëpp benn bindkat dafa ni man lam yusalli ala alihi fa salaatuhu salaatun batra kuy julli rek dem ci sallallahu alayhi wa sallam julli gi da nga war a am doo ko am du mat ndax matul boole woo ci njabootam ñu yëkkati nag kàddu nuyoo li ko teg ci mbooloo mi fi toog yëpp jëlee ko ci ñoom jëmewaat ko ci ñoom waaye di ko di ci jiital kilifa yi ñu yàlla booleel muy Umar ak El Hadj ak mbokk yi ñu àndal yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di baalu nag sama mbokk fii ma ko fekkoon mu toog bu woon mu dëgg ndax moom ñoo bokk lépp fekk it suñuy waajur nekk ay xarit. tabaarakallah waaye fii ma ko fekkoon moom bu ma sañoon fi jóg dafay toog rek ndax nit moom yàllaa ko terale ndax bu fekkee ni ki ki ki nekk ci oto moo war a nuyu kii kii dox kii dox a war a nuyu kii toog kon man maa waroon a nuyu maa leen waroon a fekk ci seen place noonu la ko borom bi bëggee noonu la ko borom bi bëggee waaye dafa am lu gaañ di jiital toujours léeg-léeg nag nga laaj. sëriñ ak taalibe ku yilif sëriñ ak taalibe ku yilif ah ah wala ma laaj ñett ñi kii maçon la kii architecte la kii borom xaalis la ñett ñi ku yilif borom xaalis bi mënul tabax waaye bu fay bu am tabax am taxawul kuy kuy tabax buñ ko fayu du tabax waaye moom it bu fayu lu naa kon bu tabaxal du am boo ci boole wu architecte bi du dem ñett yi ñëpp dañuy ànd rek mooy moo tax bu sëriñ amul bu taalibe amul kon ànd rek fi nekk ànd rek fi rafetal nahnu qasamna baynahum maishatahum fi lxayati dunia wa rafana baadahum fawqa baadin liyattaxida baaduhum baadan suxriya ànd rek fi nekk ñun ñëpp kenn xamul kan la ci ñun yaakaar rek fi ne yaakaar boobu nag yàlla na ko yàlla tas kon ñu nuyu leen bu baax ci seen ñaar yi yëpp ci wàllu diine ji nuyu leen ci wàllu li yàlla teg ci seen loxo ndax atiu allah wa atiu rasula ulil amri minkum ci leen yàlla boole kon ñu ngi leen di nuyu bu baax nag di nuyu ki nga xam ne moo leen yàlla muy président bi di nuyu bu baax di nuyu mbokk yi fi fekk ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye di nuyu shérif. ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu doomi soxna yu bàyyiwuma ak jigéen maa ngi nuyu ñëpp nga xam ni moo sabab mbir wax ni as sababu huwa maa yanfamu min wujudihi al wujudu wa min yi kilifa gi waaye jiital ci bi it ndax mooy tafsir di bu baax nag waaye di ndokkeel yëpp. tafsir damay laaj Idrissa yi mooy kan mooy kan Idrissa mooy bàyyi xalifa mu taxaw Idrissa mooy bàyyi xalifa mu taxaw yéen ñii ndax seen benn waay dafa ñëw ci seen maam Cheikh Al Hadj Malick ni ko góor gi day jàng laa jàng ma tax a jóg ne ko ah am na lu fi yàlla bàyyi def de kon nañ ko bokk incha allah mu ne ko dama bëggoon nga nekk sama royuwaay mu ne mu ne ko déet am na ku ñu yàlla royloo am na lu ma ci xam kaay ma bokk kaay ñu bokk ko jàng ñu ñëpp ñu bokk ànd roy muy Seydina Muhammad waa ji ne ko waaye bëggoon naa xam yaay kan mu ne ko ah doom man day tekkee bu ma di nekk ci man yëpp mag ñee ko ci def bàyyi leen ba sama njaboot mag ngeen xam ay kan loola tax ma ni Idriss mooy bàyyi xalifa yéen ñii toog ñoom ci seen bopp ñooy wax naan banu naa banu ab naa inna seeni doom ñoom ñooy seen doom tabarakallahu kon góor gi jógee fi ba tey loolu nag yàlla na yàgg yàlla na yàgg yàlla na sax lool yàlla na sax lool bu ñu nuyoo bokk yëpp ziyaar yi yëpp kii bi yëpp ñu ngi leen di yi kan ngeen wuy si ah tafsir moo leen moo leen woo ci turu kat ok oh, kon tam ngeen wuy si suñu ngeen wuy si yaa ayyuha alladina amanu stajibu wa lirrasuli ida lima kon tam ngeen wuy si moom mu teg te ni lilladina stajabu li rabbihimul xusna kon bu ne kenn jàpp ni dëgg la moo ko sabab waaye woowu leen ci turam dégg ngeen ni mu laajee lépp daf ko doon laaj ci tur yàlla ngeen wuy si ko te yàlla tax daf leen di bàyyeeg yàlla moom mu fay ko yàgg ngeen ko woo mu di leen wuy si waaye daf wuy si woon pour jàngale kan mooy rasulillah ànd ci ak yéen fu nekk fekk na leen fa amul samedi amul dimanche fu leen ko wooy mu jóg kon ba tey moom wuy si wu leen woon yàlla ngeen di doon wuy yàlla da doon wuy si. bi mu woote la yàlla yéen it yàlla ngeen buy si waaye moo ko sabab nag kon yàlla ñu ko yàlla fay yàlla na ko yàlla jàppale lii ngeen fi déglu kenn moom kenn amu leen payam alladina wa ida quri al quranu fastamiu wa ansitu laallakum laal la yàlla fi ngeen ko aj laan lay yàlla laan lay sëriñ ngay bokk nañ ah ah alxaj taf ah alxaj Idris lay sëriñ ngay ak laan lay yàlla bu ci gën a jàppali bu yàlla moo gën a jàpp ci bu yàlla rek <laughs> bul bëgg ni xanaa kon yàlla rek a nekk ñu nuyu ñëpp nag lépp luñ ci def rek xam leen ni ci loxol yàlla ngeen koy teg ñu ngi nuyu itam ala dimanche bu baax yal na ko yàlla taxaw loolu yàgg na ko seq ak moom jàpp na ko seq ak ñeneen yi waaye yàlla moo mën a fay kenn mënul fay ku yàlla man jaa bi xasana fa lahu ashru amsaaliha fii lan la ñu neexal yàlla moom li ko def kon lépp yàlla kon ñu sant ñëpp rek waaye sant it rajo Umar ministre bi ñu àndal mu jotalal ñu bu baax président ndax lii ca dëgg-dëgg mbokk yi ku la ko defal defal na la mu rëy ñun ñi fi toog ñëpp amuñu ku dul yàlla ak ñun ñi fi toog ñëpp alquran waxtu buñ ko ñàkkee yëg rek ñàkk a nekk waaye feeg ñu ngi yëg alquran ko du ñu nekk ndax ñun ñëpp. fi yàlla jaara ñun ba ñu am jaara na la ko ci alquran léeg-léeg damay faral di laaj ba faral di laaj fi ma sa am doom rek ma jox sama oto wala am naa kër fële ci ren nga foofu laa juddoo ku ma koo wax rek ma jox la ko ku fi am doom ma jox la bonne chose loolu la wax aha maa tumnuuna antum antum am nahnu kon kan la afaraytum maa tahrusuuna antum am nahnu afaraytum maa alladi tashrabuuna antum afaraytum naara allati kon kan la te yëpp alquran na ko wax lii yëpp alquran ci boppam moo ñu ko bokk kon yal nañu yàlla boole jàppale sunu borom subhanahu wa dafa wax ni bu ma wootee na ngeen ma wuus ñan la ko wax ñi gëm ñi gëm ñana gëm yàlla ak nangu ne yàlla am na du benn nit mën na koo def te gëmul yàlla ki gëmul yàlla toppul yàlla nit dana gëm yàlla it waaye ci kaw ñàkk xam bi bi bi ñëre ne qaalatil aaraabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna kon nangu nañ ni yàlla am na waaye gëmagu leen yàlla am na sunu borom subhaanahu wa taala ni bu ma wootee jaarale ko ci rasulillahi te al ulama warasatul ambiya mu jaar ci Idris mu jaar ci tafsir ñoom ñëpp ñu woonu fii di ñëw yàlla ne bu ngeen ñëwee danaa leen defal loo xam ni dana dundalaat seen lépp seen lépp seen lépp la yàlla di dundalaat yàlla ne nag amul dara lu ngeen nekkee ci metti wala ci ay jafe-jafe mu ump ma yaxuulu baynal mar'i wa qalbi ndax borom bi xam na liy nekk ci diggante nit ki ak xolam bu baax a baax te ñun ñëpp dañ jàpp ne ëllëg yàlla yéex ci yàlla la ñu dem moo tax gëm yàlla mooy muy sax ci xol cër yi defe gëm yàlla al iman toujours day ànd ak amal jëf gëm yàlla day ànd ak jëf waaye gëm yàlla bu ànd ak jëf kenn ko tuddee gëm yàlla ma nettali leen lu ma dal ak seen papa dama ko ma sa fëgg muy seen papa Abdoulaye Diouf dama ko fëgg benn bis mu ne kokkan la ne ko man Serigne Babacar mu ne ma déedéet Serigne Babacar kañ di ko yàlla santoon ci la nekk ba bi muy wuy ji boromam nee ma Serigne Mbaye ma ñëw mu ne ma andi kayit ak bit ma andi bit bit ni ma bindal laa naarifu daqa ma ne ko papa mokkal naa ko mu ne ma déet doom du mokk ci cër la nekk waaye nee ma yar nga ko foo dem wax ko fa te doo ko jëfe foo dem wax ko fa te doo ko jëfe moo tax nañu bàyyi xel toujours ci sunu bopp li ñuy seet ak sunu borom ñu di ko def duñ ko bëggee moo tax toujours ni déet waaw moo tane waaw déet moo tax jullit toujours rek ñu ngi koy ñaanal fu mu toll. yàlla jàppale ko bu baax a baax waaye yàlla leen yàlla fay bokk yi yàlla leen yàlla fay ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di ndokkeel bu fi toog ñépp nag surtout kilifa yi nga xam ni kilifaa leen fi yabal ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp euh, wuy si yi ngeen wuy si wuy si ko yàlla wuy si ko alquran wuy si ko lislaam yàlla leen ko yàlla fay waaye tafsir abdourahman bi ñu may lii yàlla fay li sëñ bi nar a muri. ma benn bu ci kontaan. ñu ne kontaan na islam la sa cër la la sa wallaay cër bu la yàlla cër sëriñ a joxe ndigal ñoo ko bokk ñoo ko bokk sëriñ a ngi ànd ak yéen kii teg sa loxo rek ñoom ñu teg barke barke la li ñu ñaanoon président yaa koy def ci ndigalal président Omar. macha allah. voilà. monsieur le maire. Ah, merci. da nga koy denc. jërëjëf jërëjëf comme que sa kër bi da nga koy denc. monsieur le maire ak sunu la ñuy seetlu denc ko waaye yàlla leen yàlla seen ndimbal ci biir ak ci biir. ñu tàllal loxo yi. ñu tàllal loxo yi. nee na ñu tàllal loxo yi. yàlla taxawu. sëriñ bi nee na dafa waay nekk tàllal loxo yi. mi ngi taxaw. na ñëpp nangu ñaan. amiin yaa rabbal amiin amiin. amiin. wala ngeen di gën a